bu ñu gisee itam beneen euh, intention boo xam ne Pastef am na ko mu mel ni euh, Modap ci li ñu jot ci xibaar mooy jox nañu leen ñaari euh, député yu ñu yuñ mën a dugal ci liste national boo xamante ni day am titulaire ak suppléant loolu dañ koy rafetlu bu baax a baax mais nag sàkku lu nu mel peut-être wees na ci jamono yi ñu toll mais ñu gën leen bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que combat wu Pastef doomu daara yi dañ ci liggéey lu am am am solo waaye itam li ci kanam itam dañ leen ci gën a soxlawaat parce que Pastef bi muy départ avant que muy yegg ci en 2019 ci campagne élection présidentielle 2019 da nga seetlu ne les intellectuels comme ñoom ni ñu koy tuddee parce que jàpp nañ ne ku génnee ci école nasaraan bi moo war nekk intellectuel ñooñu ñoo bootoon parti bi daanaka boo xoolee mais ci moment boobu bi ñu demee élection troisième lañ jël euh, pourcentage ba ñu am jarul ñu ci ñëw mais ci ginnaaw loolu da nga gis ne les doomu daara a adhéré li nga maanaam dafa day doon lu facile ci ñoom ñu expliquer na naka ngay toppee Ousmane Sonko naka ngay toppee procès wu passé waaye tam lan lañ la ciy convaincre loolu jàpp naa ne euh, les doomu daar dañ ci liggéey lu am solo loo xamante ni ëllëg a ginnaaw ëllëg maanaam li weesu soxla nañ leen si jëriñoo nañ ko mais li ci kanam itam dañ koy gën di soxla ci ñoom kon Euh, dëgg la euh, symbole la li nga xamante ni mooy li ñu gis ñu def ko parce que parti yi weesu yëpp jafe woon na nga gis taxawaayu doomu daara bu mel ni li ñu gis ci Modap waaye itam responsabilité bi nga xam ne jox nañ leen ko itam jafe na nga gis ko ci ñoom mais dañuy sàkku rek surtout yu ni mel ñu gën koo bàyyi xel maanaam gën jox doomu daara yi gëdd ci li xam ne moo di langue politique mais nag ci foofu itam leen doomu daara tamit maanaam comme li nga xamante ni la ko sama benn waaye waxe woon ci sama kanam ma dégg mu ne Ousmane Sonko daf ko ne euh, njabootu daara bëgg naa ñu gën dugg ci politique bi nekk ci poste de responsabilité yi mais nag dañoo xaw a tëj seen bopp trop cest dire que foofu bu ma koy wax mooy message lay doon boo xam ne dañ koy lancé ci képp koo xamante ni euh, doomu daara ngay mbubboo sa bopp c'est-à-dire que mënuñ nekk ci benn réew wala boog tam ci benn moomeel goo xam ne ñëpp ko bokk ñu ne mbir la kat mu ngi nii moo xam ne tegu na dañ koy dénkaane ñu ne dénkaane ca ka nga wóolu loolu la olof wax mais buñ demee bay dénkaane dañuy xool ñi nga xamante ni ñoom lañ gën a jàpp ne euh, ñoo gën a jub ca population boobu wala ca askan boobu ñu ne leen yen mën leen a yor ndénkaane wala boog itam li ngeen jàng mooy leen ngeen seere suñuy ndénkaane Euh, loolu jàpp naa ne njuumte la boo xamante ni amaana système yi weesu peut-être jàngat lu gudd la du temps bi dañu ko may ñooñu ko forcé woon mais nañ fexe ba ñoom def ci benn corrigé boo xamante ni dina doon lu sax loo xamante ni beneen régime yi ñëw sax amaana dinañ gën a jëmmal li ni moo di doomu daara yi ci li nga xam ne moo di doxaleenu politique bi waaye itam ñoom seen bopp ñu impliqué seen bopp jël ay responsabilité ci parti yi nga xam ni moo fi nekk soo ci nekk fa ngay milité nga fexe am ci ay responsabilité doxal ko ba a ginnaaw ëllëg lañ lay nommer wala boog itam lañ mérité nga ko amaane ci cadre xam-xam wala leneen ak leneen euh, dañ ci nag am rafet njortu bu baax ci régime bi nga xam ne moo toog bees parce que euh, gis nañu barki démb benn nomination wala boog ci fan yi benn nomination boo xam ne gën na rassuré ñu bëree bëri euh, mu di docteur Jim Dramé bi nga xam ni moom la ñu jox direction des affaires religieuses jaakaar naa ne nomination boobu bi ko ñu bëree bari gisee ci Sénégal yi am nañ ci kontaan parce que diggante sëriñ si ak li nga xam ne moo di les hommes politiques dafa amoon benn euh, di wax pourquoi la moo xam bu kër doon moo xam président bu mu doon Macky Sall am information yu war a jox ki nga xam ne moo di la xalif ba mu toogal mais même la xalif moom itam dafa jàpp ne dafa am information yu mu a Euh, xamal euh, président yoo xam ne bokkul woon ak li mu xam te pourtant dañoo bokk ñoom ñaar di gouverner ndoo wala boog tam di jiite ndoo mel ni mbir boo xamante ni amaanal benn njaboot la goo xamante ni kii wala ba période bi dangay soxla spirituel bi bu période bii nga soxla li nga xam ne moo di temporaire bi ñaar ñooñ nag buñ bokkee yilif aw mbooloo yilif lu ñëpp bokk jàpp naa ne wax baax na lool seen ay xibaar wala boog tam la ñuy dundee la ñuy doxalee ñu gën di ko communiqué ci lu dul rek événement jot ñu ñëw toog mais dañ ci am xel mu dal ci tuuti li nga xam ne dégg dañ ko ci moom euh, président de la république xamle ba ne au lieu que ñuy bàyyi rek président comme ni ko Ousmane Sonko yàgg di waxee yor ab keesam di distribuer xalif sàngam yóbbul naa ko xalif sàngam yóbbul naa ko peut-être pour tëj làmmiñam wala boo ko tam pour téye li nga xam ne moo di ay euh, conviction ay gëm-gëmam ci par rapport ak li nga xam ne moo di actualité wala boo ko tam activité yi ñuy amal ñoom les hommes politiques euh, pour que bu ciy prononcé amaanaam mu wax ci la leen arrangé euh, pour nga mucc ci loolu dañuy am juste loo xamante ni maanaam même bu dee bit sa lay tudd wala boog lu mu mënta doon alal jay dem ci këru diini yi dañuy sentir ne ñenn ñoo ko fay yóbbu mooy askanu Sénégal jaaree ko ci seen état moo xam ku ko mënti incarné euh, ba nga xamante ni président bu toogoon ci kanam euh, benn xalif bu mu mënti doon alal jëm koy joxe peut-être ci poosam la koy jëlee mais bu sentiree ne euh, dëkk sangam am na projet bu fu war dem loolu état moo koy gàddu yóbbu fa bu ñuy sant it amaana mën nañ sant état gërëm ko. peut-être nag sant ak ngërëm li mën nañ ko teg ci loxol ka jiite mais nag du dem bay am benn influence bi wala bëgg itam luy xeetu noteel impacté li nga xamante ni moo di moo di moo di euh, doxaleenu kër googu ba nga xam ne parfois day jur euh, séparation di am ci diggante taalibe yi ak li nga xam ne moo di sëriñ si parce que séparation yi toujours li ko indi mooy xalif bi peut-être dañuy toll ci jamono boo xam ne li taalibe bi di dund ci souffrance li muy dund ci injustice li muy dund ci euh, tumuranke day wute ak moom xalif bi la muy dund et puis itam ñu gis ki teg taalibe bi toor boobu kii ko teg fitna boobu di avisé wu toujours ak xalif bi nga xam ne moom la yaakaar euh, loolu day jafe lool ci nopp ñu mën ko expliquer euh, leneen lu dul farando wala boog itam par parloo moo tax kon jàpp naa ne kon euh, direction bu ni mel war na liggéey lu am solo et itam fexe ba dugal ñi nga xam ne dañoo am diplôme arabe ci réew mi parce que réew mi dafa am ñaari école yu fi nekk ñii tànn ne ñoom école bi ca la ñuy dem pour jàng seen am xam am seen xam moo xam nañuy bayee moo xam nañuy càmmee moo xam nañuy Euh, defee industrie moo xam moo xam am koo xam ne moom dafa dugg ci école nasaraan bi jàngee ko fa kon ñaar ñooñu ki ko jàngee ci arab bi ak ki ko jàngee ci nasaraan amu ci kenn koo xam ne dañ la war a euh, tënk jatang la ne la kat a jëriñ sa réew parce que ci langue tel nga ko jàngee kon jàpp naa ne kon bu gouvernement yeeg see bés wala état jàpp ne ñooñu dañoo war a def recherche pour fexe dugal leen ci li nga xamante ni moo di doxalinu Sénégal ak itam seen diplôme ñu fexe ba boole ko reconnaître ko ñu war a ci mën a jaaree jëriñ réew mi loolu lu ñuy rafetlu bu baax a baax la Euh, encore une fois di leen ñaanal waaye itam comme ni ñu ko annoncé ñoom euh, du ñàkk euh, fi ki fan wala boog bu ñu defee seen installation direction boobu ak koo ko jiite di docteur Jim Dramé dina def tournée wër këru diine yi nga xam ñoo nekk ci Sénégal parce que Sénégal itam loolu sac la boo xam ne suñu borom moo ñu ko jox mooy réew boo xamante ni boo fi duggee mën nga ne këru diine goo dem rek taxawaay ya fa nekk wala boog kilifa ya fa nekk mënoon nañ incarner ab continent wala boog itam incarner amaana adduna waaye suñu borom dajale loolu yëpp ci benn réew kon loolu warut nekk loo xamante ni lu ñuy tënk la wala boog itam lu ñuy teree dem la mais dafa war a doon benn outil boo xam ne dañ ko war a jël utiliser ko pour yegg fi nga xamante ni yeneen réew yi sax mënuñu faa yegg parce que euh, xéewal la gu ñu borom bi defal kon euh, ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñooñu nga xamante ni ñoom lañ teg ci direction boobu succès boo xamante ni dina kawe lool seen ay njortu euh, peut biñ koy jeexalee itam mooy.